bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa ci ndigalu Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général des Mourides jaar ci Serigne Cheikh Bassirou Mbacké ibnu Serigne Abdoul Khadir bi nga xam ni moo yor kàddoom jëwriñu daara yi Hizbut Tarqiyyah Serigne Youssou Diop mooy jottali ndigal di yëgal mboolem daara yi Hizbut Tarqiyyah yi ci biir réew mi ak bitim réew ndigal li ñu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké baaxoo jox ci waxtu yi mu jëm ci njàngum xaside yi njàng moom nag njàngum yëkkati lay doon ak njàngum durus ñu di ko dare dibiir fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru tabaski wi ñu nekk dëppook 17 juillet 2022 ba dibeer ji dellu si boo ko defee altine ja war a doon ñaar fukki fan ak juróom ci weeru tabaski wi war a dëppook itam 25 juillet 2022 mooy bis bi ñu koy tëj njàng mi nag kenn ku nekk fa nga nekk fa nga koy defee waxtu yi ñu koy def itam mooy waxtu yi nga xam ne moom la ñu sëriñ bi baaxoo di jàngaloo bu dee suba gi juróom-ñeenti waxtu ci suba ba fukki waxtu ak genn wàll muy 9 ba 10 h bu dee guddi gi itam juróom-ñeenti waxtu ci guddi ba fukki waxtu ak genn wàll ci guddi muy li dale ci 21h ba 22h30 muy xamle itam ne njàngum xasida mi dëgg la sunu ndigal la nun waa daara isbu tarxiya suñu digganteeg cheikh mouhamadou muntaxa mbàkke waaye nag dañ ko mës di ànd ak bokki taalibe bi yëpp rawatina ñi nga xam ne ñu ci ràññeeku lañu muy ëxlu xasida loolee nag ci njiital sëriñ Hamzatu Mbàkke mi nga xam ne suñu sëriñ la di suñu kilifa moom Cheikh Souhaïbou Mbàkke mi nga xam ne ñoom naka jekk dañ ko def muy seen liggéey saxal ko sëriñ Yuusu itam dellu di fàttali ne ndigal li ni ko sëriñ bi sàkkoo mooy kenn ku ci nekk defe ko fa nga xam ne fa nga nekk ñu di ko dale dibéer fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi ñu nekk mu dëppoog 17 juillet 2022 ba dibéer ji dellusiwaat bu ko defee altine ñaar fukki fan ak juróom ci tabaski dëppoog itam cinq juillet mille vingt deux mooy doon bis bi ñu koy tëj di ñaan nag Cheikh mun Mountakha Mbacké mboolem lu mu ci fas bëgg ko ci yéene ko ci bëggal nu ko ñun dongo yi ak bokki jullit yëpp suñu borom defal ko ci lu kawe njortam ci barkeb xaside yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa